ak signature yu bëri yi xam nga c'est pas pour. est-ce que du pour monopoliser làmb ji wala. làmb yow monopoliser na ko ba pare. waaw mais avancé dafa bëri signature yu bëri. mais loolu la yàlla dogal kooku moom soo sax. Euh, euh, coow yu bëri yi. Uh-huh. xam nga gars yi dañu nangu ndogalu yàlla. mais yow boo coowee coow li bëri boo coowul coow li bëri. waaw mais dañuy nangu ndogalu yàlla. xam nga léegi léegi nu may parce que ñu bëree naan a monopoliser la non euh, loolu monopoliser naa ko ba pare. nangu nga kii kay li fi nekk tëgg na ko yëpp. nangu nga nongu naa ko léegi damay noppi dootuma tontu sax. ah waaw tontu kay. bu làmb ji doon sow daal ñoom may ma non non non non non jël nga ko léegi daal damay toppaloo sax le président Macky Sall. xam nga mi ngi liggéey. Mhm. mais coow yaa ngi bari lu ne ñu ngi koy yegg du tontu kenn. Mhm. kenn déggul mu tontu bi. Mhm. léegi noonu laay def du ma tontu kenn. li ngay def li ngay def. damay def li may def. boole ko patt waaw parce que kooku yàlla dimbale fi nekk. Uh-huh. comme yàllaa ngi may dimbale nag. Uh-huh. tontu ko sax tontu nit ñi sax day nekk gëmën yàlla. waaw léegi Malick Bordeaux Balla Gaye acte 2 lan lañ ci war a xaar ci côté Balla Gaye ak ci côté Gris Bordeaux pour ñëpp kontaan. Balla ah bon acte 2 bi comme acte 1 bi moom waaw. waaw mais bis la boo xamante ne bis bu ñuy waajal la le 7 août yàggatul. Gris yàlla dogaloon na bari nañu mu nekk combat boo xamante ne combat bu neex la. supporters yi teeloon dem stade. moom fa la ndékkee. moom fa la ndékkee waaw. Mhm. donc man tamit fa laa añee. <laughs> donc mu nekk combat bu neexoon boo xamante ne sénégalais yi. ñëpp supporters yi fees jël vraiment jour boobu. <laughs> supporters yi am satisfaction bu neex amateurs yi mel noonu. te nañ jàpp nag bii moo koy gën a neex bii moo koy gën a tàng. Mhm. Ah. te incha allah bii nag bëgg nañu mu leer naññ. le vrai lion day ñëw. waa xam nga ne boo ne lion ne tigre loolu lu fay sedd amu fa waaw kon lu fay sedd amu fa nag kon nañuy xaar la sept août daal mhm. dina tàng dina neex incha allah euh, man waa géej waaye dañ maa yónni mhm. ma amee leen ay boor aussi waa Casamance ak supporteru Balla Gaye numéro de yi moom aussi tamit waa Fass parce que man la mujje bëreen wax na ko léegi mu nekk combat bu ñu war a dajawaat ku gëm entraînement la fi ngay dajewaat ak moom dafa. dafa am importance sa carrière. waaw ku gëm entraînement la ku respecté entraînement la. Hmm. mooy li mu ko waxee bu simmeekoo ko amateur yi mais man tamit mu simmeekoo simee ko te ñaari mbër nag aussi entraîné ba am doole bii moom incha allah moom yaakaar naa ne du sax yàgg mun na bañ a yàgg incha allah. ci ma jàpp mais Balla est-ce que ñeenti avance yi nga jëlandoo deful ci say combat dara Balla. non parce que yaa ngi nii di wax ñu ñuy wàcc sa combat Gris Bordeaux gis nga sànq ñi ngi la tegal Boy Niang mm-hmm. loolu nga yaakaar ni du def dara ci say combat defuma dara mbër mu sañoon am